ni benn politicien mu ne ku bokk surtout ku bokk si opposition bi mu ne tout va bien mais lu ma jaaxal moom mooy waxoo joxoo benn solution lan lañ war a def pour loolu mu saafara loolu moo pour man loolu moo ëpp solo fuuf que li doxul li doxul li parce que de toute façon ça fait vingt ans ñuy dégg loolu léegi yéen seen côté comme que ñaang mi doxul jeunes yi ñu ngi dem euh, nit yi pouvoir d'achat bi amuñu loo xam moom lañ jëndee lan lañ war a def pour loolu lépp saafaraw merci beaucoup mais balaa maa tontu si question am. damay tirer un peu sur la pour sénégalais yi nga ne ñu ngi ñuy parce que ka nga xamante ne moo def discours am moom la mu wax léegi bu ko déggee sax je crois que dina dina ko mere. pourquoi pour man parce que daf koy gën a enfoncer à la base un citoyen buy votel nit pour mu nekk chef d'état nekk président c'est parce que dafa am ay aspirations yu mu am à l'égard de cette personne de cet individu bi nga xamante ne porteur de projet. parce que day gëm ni kii war na ko mën a tiire vers le haut ce faisant tey jii bu la fale wala population boobu bu ñu la fale da nga war a nekk ci seen waaw da nga war a nekk un serviteur pour eux waroo nekk ci li nga xamante ne mooy. yow discours n'est pas projet politique en fait loolu laa bëgg nga comprendre discours. discours politique maa ngi ñëw c'est-à-dire xam nga tey non c'est-à-dire xam nga li ngay wax noonu euh, comme euh, du la nga xamante ne dañ ko ñàkk comprendre bon c'est c'est aussi simple que sax bon. léegi nag li jëm ci wàllu euh, solution bi nga xamante ni moom ngay demander. Mhm. par rapport à la situation mais dafa bari il faut que ñu contextualiser dans un premier temps fu ñu koy démarrer ci cadre économique bi bul fàtte ne en deux mille vingt deux wala deux mille vingt deux mille vingt situation économique du Sénégal dafa nekkoon ci contexte bi nga xamante ne c'était extrêmement compliqué. parce que lan dans un premier temps en vingt 21 on nous parlait de Covid ñu ñëw 2022 du dugg 23 ñu ne oui écoutez euh, il y a deux pays qui sont en conflit mais ñun lan moo lan mooy sunu yoon ci ñaari dëkk yi nga xamante ne attends nekk nekk ñu sax ay dëkk yoo xamante ne dañu sosu attends nekk dañu sosu ak ñun directement ba ñoom seen seen seen ñàkk jubo wala seen ñàkk seen jote di am impact lourdement ci suñu économie Ah que les exportations wala les importations dafa tourner au ralenti jusqu'à ce que croissance bi nga xamante ne moom la ñu doon escompté mujjewuñu ko am jusqu'à ce que le PIB bi nga xamante ne dafay wëru tamit ci loolu di am impact non gis nga gouverner c'est prévoir et que un pays la nga xamante ne moom ngay dundalee sa réew waruloo ko basé sur les humeurs wala des états d'âme wala des états d'humeur yi nga xamante ne mi ngi base mi ngi wéeru ci beneen réew rawatina nga am une population boo xamante ne tey aujourd'hui ñu ngi wax 18 millions d'habitants am superficie de 296 mille 722 euh, kilomètres carrés maa ngi ñëw avec maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ak façade maritime boo xamante ne presque 530 kilomètres ce qui t'assure aujourd'hui des ressources halieutiques yoo xamante ni c'est garanti mais naka nga ko gérer est-ce que gérer nga ko à bon escient jusqu'à ce que aujourd'hui tey nga war a mën a dundal sa population muy benn ñaar nga ñëw am des terres arables deux cent quarante mille hectares euh, vallée euh, du fleuve Sénégal vingt cinq mille au niveau de l'Anambé ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni à l'intérieur du Sénégal est-ce que utiliser nga ko avec une population jeune boo xamante ni aujourd'hui on te parle de 75 pour cent de la population aujourd'hui en âge de ba léegi waxagoo solution yi de mën a liggéey solution yooyu ci la ñu nekk c'est-à-dire ressources yooyu noonu avantages yooyu mënuloo ko am ci wàllu économie exploité woo ko ci wàllu agriculture. Comment, pourquoi non, ne pas mettre en place une agriculture mais, intensive mais ma s'il vous plaît maa ngi ñëw maa ngi dugg léegi ci ci ci ci ci ci étape yi directement une agriculture intensive qui pourrait te permettre d'avoir une politique euh, euh, d'emploi réelle parce que la ressource humaine bi nga xamante ne am nga ko tey ña nga xamante ni ñooy sa jeunesse di daw di dem en Occident dëkk yooyu ñuy dem loolu la ñu manqué yooyu yaa ngi am une matière bu nga xamante ni yàlla suñu borom dala ko jox muy la jeunesse mënuloo ko exploiter c'est parce que tu manques de vision sa agriculture mënul dem nan nga bëggee wér sa agriculture ci beneen réew di bëgg a wax autosuffisance alimentaire wala souveraineté alimentaire bu fekkee tey la nga xamante ni euh, mooy say terre arable xam nga suuf dañ koy bay pour wan lu muy meññetee fa nga mën ko dundee mais nan nga koy bayee su fekkee lay dundal suuf bi yoruloo ko maîtriser woo ko ana say engrais pour que les agriculteurs puissent puissent bénéficier d' engrais aujourd'hui c'est sa engrais jox nga ko indien mais mais lan nga ne mais mais dagguma la il va falloir maa ngi mais xam nga quand c'est important. nga bëgg ma dagg maa ngi si agriculture bi su ma paree dañuy ñëw ci beneen ak beneen ak beneen boo ci boo ma si laal laaj. naa la compte non da nga ne sànq guerre Ukraine bi ban lan la mën a impacté fii mais engrais bi juste ma terminer fii parce que c'est important. bu fekkee c'est pas important pour yow ka nga xamante ne mu ngi ñuy seetaan et que fil de conduite bi am na solo pour moom di nga ko ko daggal. allez-y merci. ni naa la loolu yëpp tey sa ak sa suuf bi nga xamante ni da naam. da ko war a arrosé boo arrosé sa suuf xam nga bay ñaar la. neew ñu taw bi rek d'accord suñu borom facturé wu ñu ko irrigation bi boobu seetaan nga ba tey munoo assurer yenn euh, hectares yi pour mën ko cultiver suñu cult euh, suñu agriculture ci la basé wu. hivernage c'est pas normal nous sommes en 2023 les éléments basiques pour devraient nous permettre aujourd'hui le lëkkale ay Sénégal jamonoy Sénégal 92 à ce stade waratuñu woon sax wax affaire hivernage boo arrosé les terres da nga war a wax nanga koy dundalee na nga koy dundalee mooy lay engrais léegi nag jox nga ko indien il faut trouver. d'accord beneen astuce pour que nga mën a récupérer yëf yi. dinañ ñëwaat Abdoulaye mën a dundal suuf si jox ko agriculture dinañ ñëwaat.